kurmatun teraanga la tolli ko itam bu dee jigéen daa xaw a nuru xaraf tuuti ndax daa am jigéen ñoo xam ne daal day mel ni seen sawukaay day am lu mel ni xiru ganaar loolu nag ñu dindi ko te bañ a ëppal dindi ga loolu ba tey lu ñu sopp la lu baax a baax la ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon na ko dañoo sib nag ku ko xarafal moom gone ga ca bis ba mu juddoo mbaa bisub ngénte ba lañ bëgg daal mooy bala ñu ko xarafal mu am juróom-ñaari at jëm fukk diggante boobu daal lañu sopp ñu xarafal ko ca baabu ndi ab bunt la fil jihaad ci jihaad jihaad mooy xare ak yéefar bi ngir yëkkati baatul islaam wala ma tudd jihaad wal jihaadu jihaad faridatun farata la yaxmiluhu dana ko yenu baxdun naasi lenn ci nit ñi xam baxdin wal si lenn maanaam bu fekkee ne yéefar yi songuñu jullit ñi jullit ñi ci bopp rek ñoo bëgg a yaatal lislaam nga xam ne ñoom jullit ñooy songu ndax bëgg a yaatal waaye kenn songu leen su boobaa kon jihaad ji fardu kifaaya la bu ñenn ña demee rek du aajo wa ñenn ñay dem te balaa kenn dem na diisu ndeyam ak baayam ba may ko ca ndigal bu fekkee yëfar yi ñoonu song nag moom dana ko wax ci kanam day daal soppiku faratee jëmm ci ne ñëpp war a jóg taxaw temm ci delloo yëfar yi gannaaw wa ahabu li gën a sopp ilinaa jëm ci nun malik an laa yuqaatala mooy bu deeful xeex ak alxaduwu noon ya xataa yu doxaw ba te deefi woo leen ilaa diinillaahi jëm ci diine yàlla ja liñ gën a taamu nag mooy duñ jekki-jekki song yéefar yi dañ leen di woo ci lislaam ba xam nangu nañoo ñëwam déet te tegale ko ñetti fan bis bu ne ñu woo leen ne leen ñëw leen ci diine yàlla ji kenn ku ne nag nam weddee rek lañ koy wooyee bu dee ku weddi yàlla ñu woo ko ci gëm yàlla bu dee ku weddi matalek yónni ki yàlla yónni yonante bi ci ñëpp loolu la weddi ñu woo ko ci mu nangu ne ci ñëpp ñëpp la yàlla yónni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illaa an yuxaajiloona ndare bu dañu noo gaawe dañu noo gaawe mooy dañoo jekki-jekki songnu fekkee ñoonu jëkk song jekki-jekki songnu moom jekki leen woo naa leen kaay dañ ci diine yàlla ji du fa xajati dangam jekk-jekki nañ song moom fayu rek delloo leen gannaaw moo cay pexe xajati dangam jekk-jekki nañ song moom fayu rek delloo leen gannaaw moo cay pexe fa imma an yuslimo benn ñu nangoo tuub aw yu addoo wala ñu nangoo joox al jisyata galak ga wa illaa ndéem defuñu ko rek xóotiloo xeexee fak ñoom buñ leen di woo daal moom yaar ñu nangu liñ leen di wooye mooy lislaam mbaa niñ ko waxee woon léegi ñu nangoo joxe galak mu wane ne nangul na lislaam ak tasaaroom te ñoom duñ ko xeex duñ ko sot teewul na ñu nekk te lañ nekk ñoom waaye buñ gàntoo yu yaar yëpp rek ñu xeex ak ñoom wa innama tuqbalu naka def na nangu minhum ci ñoom aljiseetu galak ida kaanoo ndem nekk nañu xay su tanaaluhum foo nga xam dana leen jot ahkaamu naa suñuy atte fa amma in baadoo ndaal ndeem sori nañu min naa ci nun fala tuqbalu deful nangu minhum ci ñoom aljiseetu galak ga ba ñu nangu ñu joxe rek galak dañ bàyyi leen ci seen diine day fekk ñu jegeenu ba nga xam ne lu ñu nekk nu xam ko waaye bu ñu soree lool lool te nanguwul ñoo jege si kon tuub rek kay baax waaye nangoo joxe galak moom du doy illaa an yartaxiloo ndare bu dañoo nangoo laxas illaa bilaadina ba ci suñuy réew wa illaa ndéem nanguwuñ ko rek xootiloo xeexee ak ñoom bu fekkee dañoo sori ñu woo leen ci lislaam ñu gàntu ne nangu nañoo joxe galak waaye nanguwuñu dugg ci lislaam sori sori waaye bàyyi tax duñu ko nangu xanaa ñu nangoo jege si ba jege si rek moo koy tax a baax waaye bu fekkee nanguwuñ ñoo jege si moom kon say boo ñu xeex ak ñoom wal firaaru daw minal xadu yi ca noon ya minal kabaayir bokk na ci bàkkaar yu màgg ya isa kaanoo ndem nekk nañu mis lay xadadil muslimina di ñaar jab li mub jullit ña fa aqal la topp lu ko yees dafa in kaanoo ndem nekk nañu ak sara depp min zalika ci loolee fala ba asa kon déetu ay bi zalika ci loolee nee na boo bokkee jullit ñi nag na nga moytoo bokk ca ñay daw lu may nga xam ne yéefar yi ëpp nañ nu ñaar ca waaye bu fekkee yéefar yi dañ noo ñaar ca kese yem ci mbaa sax bëtuñu nu ñaar ca kon benn jullit du sañ a daw ku daw da nga am bakkaar bu rëy rëy rëy boo xam ne tey na waar bu fekkee dañ noo ëpp ñaar ci nag moom ni ki nun danoo nekk junni ñoom ñu nekk ñetti junni waaw kon ëpp nañu ñaar ca kon ku daw itam du tax nga am bakkaar wa yuqaatalu def na xeex ak alxaduwu noonu ya maxa kulli barrin ànd ak jëpp aji baax wa faajidin akub saay-saay minal wulaat ci kilifa ya neena ka jiite julit ñi moom mu nekk ku baax ak mu nekkub saay saay ci yam bu wootee jihaar rek say boo ñu wuy ji ko ndax yàlla moom bu bëggee dëgëral lislaam bu fekkee ku baax kaa woote moom amul loo ci nattable xam nga ne yàlla mën naa jaarale ci loxoom dëgëral lislaam waaye bu dee saay saay ba it bu dee kilifa kay wootee nañ ànd ak moom jihaar yi day kàccoor itam du ca dara say boo ñu wuy ji ko rek ndax yàlla moom bu bëggee dëgëral lislaam mën na ko jaare ci kilifa gu kàccoore googee du ca wàññi dara dañ ko wuy ji rek te jihaati wala baasa ayut bi xatli man ci rey ka nga xam ne aussi jàppeef na ko minal alaaji ci ponkali làkkat yi daa wax ne nag bu julit ñi jekkoo yéefar ya moo xam yéefar ya di ay arab lañ moo xam ñu nekkul ay arab lañu ilimaan ja mooy seet lay maslaa rek mu doxal ko koy ci xam ne gis na ne rey ga moo ci gën na wax ñu rey ko koy ci xam ne jàpp na ne ñu def ko jaam moo gën baax na bu ne itam nañ jot seen bopp fay nangam te ñu bàyyi leen baax na bu ne nañ leen xeewi ngoro loolu lépp moom ilimaan ji moo koy seet loolu nag mooy góor ña mën a xeex mu des nag gone yeeg jigéen ñi gone yeeg jigéen ñi moom benn rek mu def leen jaam mbaa ñu jot seen bopp maanaam ñu fay alal te ñu bàyyi leen waaye gone yeeg jigéen moom kenn du leen rey wala yaqtul defu lay ahadun kenn baxda amaan ci gannaaw kóolute yéefar bu xës may amaan nag ne la ne la des la rey nag jeex na duñu mën a wëlbati ku rey ko war moom daa baaxut ku xës may amaan ne la des la rey rek loolu la ñu sàmm ba kenn la rey gannaaw ba moo tax mu teg ci wala yuqfaru deful fi di lahum ñeel leen mi ahdin ci kolëre lañ nekk nekk ay yéefar du tax ñu fecc wala rek ñoom wala wuñu fasa ñoom dañ ko war a matale ndax julit moo war a gën a matale wala rek wala yoqtalu defu rey an nisaaw jigéen ña wa sibiyaanu ak gone ya danaa ko wax léegi gone jigéen moom kenn du leen rey moom kay def leen di jaam ba jekki-jekki gore leen ñu dem mbaa seeni mbokk jot jotoo leen rek fayal leen ñu bàyyi leen waaye kenn leen rey wayu tëna bu def na teet xatlu ruhbaani rey labbe ya wala axbaari ak fóor ya illaa an yuqaatiloon ndare bu dañoo xeex ba tey nee na labbe yi nga xam ne dañuy jaamu yàlla rek ci seeni jaamukaay te dugguñu ci xeex ba joxewuñ ci xalaat defuñu dara dañ leen romb rek jàll kenn leen laal fóore yi ñu gëstu xam-xam rek waaye seen yoon nekkul ci xeex ba ba tey kenn leen laal waaye nag bu fekkee nekkuñuy xeex waaye ña ngay joxe xalaat nag waaw kon dañu daal di bokk ci xeexkat yi kon su boobaa kon daal di leen rey waaye nee nañu labbe ñu wax ne kenn du leen rey dafa amuk ràññale labbe ya beru rek di jaamu yàlla nga xam ne duñ jaxasoog seen waa diine ñooña kat lañ wax ne bu fekkee nekku ñu joxe benn xalaat kenn du leen rey waaye labbe ya nekk ca église ya maanaam jaamukaay yi seen diine yooyu nga xam ne ñoom dañuy jaxasoog nit ñi di leen jiite xeeti mees yeeg yooyu waa ñooñ ñoom doonte amuñu xalaat bi ñu joxe ci xare bay dutee bi leen waree rey rek rey leen wa kasaalika naka noonu almar atu jigéen tuqtalu def na ko rey isa xaatalat neem xeex na jigéen bu fekkee ne ma ngay xeex daañu ko rey bu fekkee ne xeexul nag moom kenn du ko rey waye joosu dana sar mooy dana wéy amaanu adnal muslimina kóolu teg ka gën a suufe julit ña xalaa baqiyatihim ca ña des ca ñoom ca mboolem ña des ca ñoom daa wax ne jullit ñi ko ci xam ne saaxiram daa xaw a yemaay nga xam ne bu fi nekkut kenn du ko xaar ci menn mbir bu teewee itam kenn du ko diisu ku mel noonu bu xasee may ab yéefar amaan maanaam ne ab yéefar duñ la rey faaw mbooloom jullit ñëpp war a maase ca loola bañ a rey kooka kàddu ngoogee mu wax du tee ñëpp ko war a sàmm ndax li yonente bi ne woon al muslimuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yasaha bi dimmatihim adnaahum wa kazalika naka noonu al mar'atu jigéen wa sabi ak xale itam itaa xaqala dem xellu na al amaan ak koolu tega jigéen bu may yéefar amaan maanaam bu jigéen may ab yéefar amaan ne ku deesu la rey ba tey ñu war a sàmm loola bañ a rey yéefar booba gone itam bu may ab yéefar amaan te fekk na xam na la mu ko may moom gone la waaye xam na ne lii muy maye bu ko mayee bi yëfat kenn wayu kenn waru koo rey ko it ba tey noonu la ñu sàmm loolu bañ a rey kooka waxi la waxees na ne in ajaasa ne wéyal na daalika loolee al imaam ilimaan ba jaasa mu wéy am nañu ne gone gi moom bu mayee amaan ab yëfar dañuy dem ba ci àttkat ba rek muy ilimaan mu seet ba xam bu ko dee wéyal wéyal ko bu ko neexee bañ ko wéyal wamaa loo xam ne xanima màng na ko almuslimoon a jullit ñi bi i jaafin ci lokki lokki mooy coona ak attaque ak xeex fal ya axus na jël al imaamu ilimaan ba xumu saxoo ab juróomeelam wa yàq si mutum li seddale al arbaaxatal axmaas ñeenti xumus ya bay na ahli jayis ci diggante ñooñ xare ba buñ jëlee ci yëfari alal joo xam ne dañ caa xeex ba sonn ca door ko door caa jot kon ilimaan jullit ña da koy def juróomi xaaj benn xaaj ba mu féetale ko ci baytimaal ñeenti xaaj ya nag moom da koy jox ñu doon xeex ñu séddoo ko daañu wax naka lañ koy séddalee waxas mu daalika séddale loolee bi baladil xar bi ci réewum xare ba aw laa moo gën a yey alal ji nag ñu séddalee ko fañ ko nangoo ci yëfar yi bañ a bàyyi ko sëf ba ñibbi si xanaa fan ko séddalee foofa ñuy jàkkaarloo moom ñoom yëfar yi seen xol di tàng ci seen alal ji ñu séddale waaw loola moo gën di ko sëf baag si door koo séddale wa innama yu xammasu naka def na juróomeel wa yuq samu te def fi séddale maa la nga xam ne oo jëfa lokkeef na xale ci moom bil xayli ca fas ya war rikaa bi ak gëléem ya wooma ak la nga xam ne runima màngeef na ko bi xitaalin ci bi xeex li mu ne wooma runima bi xitaalin lam njëkk wax ne maa oo jëfa xale yi bil xayli war rikaa bi yóbbaale na ko daa bëgg wax ne bu ñu nee alal jën jële ci yéefar ya bu ñu ko defee juróomi xaaj ñeent ña jullit ña doon xeex ñoo koy séddoo day fekk kon jullit ña xeex ca sonn ca waaye loo xam ne yéefar yi daa jekki-jekki rek daw kenn xeexut ak ñoom dañoo dégg nag jullit ñi am nañ doole mu ne su leen dékku ñu daal dem bàyyi fa alal ja noona jooju alal moom dañ koy teg ci loxoy ilimaan ji rek mu yóbbu ko ci baytimaal seet la ci jaadu mu ko cay def waaye des ko def juróomi xaaj di jox xeexkat ya ñeent ña di yóbbu benn baytimaal déedéet ndax dagam ñoom loolu xeexuñu ca sonnuñu ca loolu dañ koy bàyyi rek ci loxoy ilimaan mu yóbbu ko ci baytimaal wala ba asa ayut an yukala bu dee fi lekk minal ganimati ci màng nga qabla an yuq sama njëkk dee fi séddale ak taxaamu ñam wa wal xalaf ak yafal ba li ma ñeel ka nga xam ne ihtaaja aajo woon ila daalika jëm ci loole nee na buñ nangoo alal ci yéefar yi mel ne aw ñam mbaa luñ mën a yafale ak jur li fay ñu koy séddale bu dee ñam wa boo soxlaa mën ngaa waaxu lekk rek bu suuree bàyyi bu dee yafal mën ngaa tibb yafale saw fas te bañ a yàq te loolu kenn du ko boole sa wàll bu ñuy séddale ñu xam loolu moom amul solo ku nekk rek sañ na ko wa innama yusamu naka def na sedd li ma ñeel ka nga xam ne xadara teewe woon na aw xitaala xeex ba aw taxal laf wala mu ruusaanu ànd xitaali walis xeex ba fii soxlil muslimina ci soxlas jullit ña min amri jihaadihim ci mbirum seen jihaad nee na koo xam ne ci jullit ñi fekke woon nga xeex bi rek buñ dee sedd seddaali la koo xam ne itam fekke woon xeex bi waaye la nga nekkoon ci xeex bi la aju ni ki yaa nga woon ci lijjantib ngànnaay yaag yu demee noonu ñoo ñëpp rek mu nekk ci sàppe si xeex ñooy moom dañ leen di seddu duñ dee séddale bu ñu ne ku teewe xeex ba daañu la sedd dañoo jublu ka nga xam ne ba xeex bay tàmbali ñuy jàppante ma ngay teew bokk ca jàppante ba kon gannaaw ba moom bu gaawee faatu yàggul ca xeex ba itam du tee ñu sedd ko waaye nag koo xam dañoo sàppe nii rek rang ba jekk rek laata xeex bi tàmbali moom mu daal di faatu nee nañu kooku deesu ko sedd wa yushamu def na sedd lil maridi ñel aji tawat koo xam ne bi xarab yi tàmbali fekke na ko te ànd ak wéru yaramam gannaaw ba nag mu tawat mu jéemu wéyaale nag tawat ja di xeex rek kooku des na ko sedd waaye nag am na ñu ko dégg ne kat bu fekkee ba xeex bay tàmbali booba fekk na ko tawat waaye tawat ji teewul rek mu wéy ca xeex ba bana xeex ba jeexe kooku moo ku wér ñooye moo des na ko sédd nga xam ne kooku ñàkkaa xeex bu wér a wér itam ndax tawat jaa ko tee mën a xeex bu wér a wér du tee ñu sedd ko ba tey nee nañu koo xam ne dafa lafañ mbaamu làggi mbaamu gumba xeet yu demee noonu nga xam ne mënuñoo xeex dëgg-dëgg bu fekkee ne am nañu xalaat ba ñu joxe ca xeex ba daañu leen sedd ndax kuy joxe xalaat rek ci xare bi dal ngay bokk ci ñay xeex walil farasi ak ñeel fas wa arrahisi way aji tëjj tëjj jàngoro la joo xam ne day dal ci weewu fas wi mu ne nag aw fas bu fekkee tëjj da ko dal moo geneen tawat dal ko ñooyemoo du tee fas wa daañu ko sédd ndax fas moom dañ koo fonk lool ci yooyu jamono ndax daa amoon solo ci xare ba ñaari saam sax lañ koy sédd sédd ab cër ka nga xam ne moo mooy borom fas wa bu ko defee borom fas wa daal yor ñetti saam ma tax mu naa wayu samu def na sedd lil faras ñeel fas saxmaani ñaari cër wa saxmun akub cër liraaki bi ñeel aji waram ku yor wenn fas daal moom dañuy sedd fas ba ñaari saam sedd lëb saam muy ñett waaye waaye nag ku yor loobu wenn fas moom wenn fas fa rek lañuy sedd bàyyee ca des ba tey nag gëleem mbaa bax la mbaam mbaam kenn du ko sàkkal cër fas rek lañuy sàkkal cër wala yu samu defu sedd li xam di ñel jaam wala li miratim du jaageenu ñel jigéen wala li sabiin du jaageenu ñel gone waaye nag kañu sedd moom faaw góor lay doon te góor lay doon te mukallaf lay doon jaam duñ ko sedd jigéen duñ ko sedd gone duñ ko sedd illa an yutii xam ne dama dafa attan asabi gone ga allësi ga nga xam ne lam yaxtarim géntut alxitaala xeex ba yu ji zaho te koy wéyal al imaamu ilimaan ba wayu xaa ci la te muy xeex bayu sabu kon def na sedd li xoññal ko nee bu fekkee ne gone ga ci at moom kàlla fi wut waaye jëmm ci dëgër na ba mën naa xeex te ilimaan bi jox na ko ndigalul xeex mu daal di xeex kon des na ko sedd wala yu sabu deful sedd lil ajiri ñal bàjj bàjj mooy employé koo xam ne ba ngay dem ci xeex ba yaane ko nan dem bu nemi ne nga defal ma nangam nekk nga sàmmal ma saay bagage wala di ma indil sama fas li muy lekk kanaan yéeme noonu yow yaa ko yaa ko wut rek yóbbaale ko waaw kon yow yaa koy fay rek te la tax nga yóbbaale ko waaye moom biñu dee séddale lañ amee ci xeex ba kenn du ko séddaale xanaa illa an yuqaatila ndari bu dafa xeex lu may nag dañ ko waxoon yóbbaal di ko fay ngir lu mel li nga wax léegi waaye ba mu demee dafa xeex kon dagam xeexoon na kon des na ko sédd wa man aslama ku tuub minal xaduwi ca noon ya xalaa shay'in ànd ak dara fi yadihi lu nekk ci loxoom min amwaali muslimina ci alal li jullit ña foofu kon moom xalaal aji lew la la ñeel ko nee na yéefar yi ko ci xam ne tuub na fekk mu yor alal joo xam ne ab jullit ko moomoon kon dees ko koy bàyyee lew na ko wa man istara ku jënd shay an dara min haa ci alal yi jullit ña min maa li xaddu yi ci alal yi noonu ya lam yi axus fu du ko jëlaati rabbu foo boroomam illaa bis tamani dara ci njëgg nee na boo demoon jënd ci yéefar yi alal ndekete yow moom ko dañ ko nangowoon ci jullit bi nga ñëwee diw ne la ah lii de maa ko moom bañ ko toppee muy li wër ne moo ko moom te génnewu ci ay loxoom dara lu ko mën a génne moomee la xanaa rek tooñ rek moo ko génne ci loxoom kon nee na da lay fekk da nga koo jëndoon foofa ci yëfar ya moom mi ko moom bu ko bëgg jëlaat da lay rambul su njëgg mais da lay delloo njëgg waaw da lay delloo njëgg mi ci fayoon ba am ko loolu lay joxaat ko defee nag yoon may ko mu jëlaat yëfam bu fekkee nag fayoo ci woon dara dara moom da nga koy joxaat rek noona waaye dagam ne da nga faa jaayoon rek nga jënd ko noonu ci yëfar yi ñëw borom bëgg ko jëlaat faaw day delluwaat njëgg wa maa loo xam ne waqaxataa bi na fil maqaasi mi ci séddalee min xaa ci alali jullit ñi farab bu ko boromam xàq moo gën a yeyoo bi ci moom bis tamani ci njëgg nee na buñ séddalee alal yi jëlee woon ci yëfar ya nga gis ci beneen saam boo xam ne yow du sob saam nga gis ci loo xam ne yaa ko moomal mu ne kon dëgg la da nga ca mën a jot waaye day aajoo ñu seet lu tolloog loola nga jox ko kooka door a jël loola ndax xam nga ne comme seetlu nañ ma noppi mu bokk ci wàllu jàmbur boo jekkee-jekk jël ko ci wàllam wàllam day manqué waaye nag boo ko mënee jox njëgg rek waaw daal di mën a jël sa yëf wamaa loo xam ne lam yàqa tàbbi wutoon fil maqaasi mi ci séddale farab bu ko boroomam xàq moo gën a yeyoo bi ci moom bila sama ñu ci lu njëkk de sax al jañ nango ci yefari te kan jotu go sédalé buñ ca gisé lo xamni ab julita ko momam dañ ko nango won ci mom ci doole rek kon bu wori ni mom non rek la démé dañu jekk jekk jox ko ko ndax kin jotu go sédalé won do ajo mu ci joxé dara dañu jekk jekk jox ko ko rek wala nafala deet ndollen illa min al khumusi dara mi bok ci khumus ba hal ijtihadi ci kaw farlu ga min al imam ci imam ba manam dolin lolu moy iliman bi xet ko xamne def na jalore ak jambar ci xare bi am num ko doli nak ngir lola lol mom neena moy xet rek lu ci jaadu mu doli ko kam bëgg doli ay lol da koy boole wala da koy wëñi wala ci xumus ba kon bu ñu ne iliman sañ na doli ñu defal jambar ak jalore lu na leen doli kon na leen dolé ci xumus ba te bay leen dolé ci ñent xaaj nga xamni mom lañu sédé julit ñi doon xare wala yakun du nekk it zalika loolee xam lu xas mi ci njëkk séddale ga mu ne itam day bàyyi bañ séddale ba noppi mu door a dolli ku muy dolli waaye nee nañu nag léew yi bëgg a wax naa wasala bu rekkiit ja mi nan nafal yi bokk na ci dolleel la loolu moo jar mu naa wala yakunu zalika xam lu xas mi dañu ne ilimaan ja man na wax ne ku reyal ab yéefur ku ne lan ko fekkeeloon ci rekkiit dollee naa la ko nee nañ nag loolu lañ bëgg wax ne kat waru koo gaaw wax daa war a bàyyi ba xeex bi jeex ba ñu jël alal ja ba noppi ndax bu ko teelee wax da nga gis kon ku xeex te yàlla taxut mbaa muy jéem a dàkk ab yéefur bu neex rey ndax rek gaaw ray ko jël lam yoroon kon nag balaa wax ne ku rayal ab yéefar rek dollee naa la lan ko fekkeeloon ci warukaay ak ngànnaay ak yu mel noonu na bàyyi ba xeex bi jeex xare bi jeex waaye bu ko waaye bu ko gaawee wax rek day yàq yéeni jullit ñi waaye da ngay gis kuy xeex koo xam ne bëgg rey kee ba jël lam yore rek moo tax muy xir ci rey ga waaye du rey ko ngir yàlla xam nga gis ku xabtalu sonn ci xeex ba ndax bëgg am alali àdduna dong wala boog muy jéem a dàkk ku yomb rey ndax bëgg jël alalam tey moytu nag yéefar ba naqaree rey lu mel noonu daal kon na moytu wax moom mi jiite xare ba mbaa ilimaan jullit ñi naa ku rey ab yéefar rek lam ko fekkeloon jox naa la ko yaa ko moom bala ko wax daal na fekk xare bi jeex ba noppi te it nee nañu bu ne ku rey ab yéefar la nga ko fekkeloon doolee naa la ko it la kay xeex baaxoo yor rek niki ngànnaay yaag yére yaag faswaa yooyu lay doon waaye loo xam ne ponk lum yéefar moo ko daa moom mel ne ab lam wala ndëpp ndëpp maanaam mbaxanam wurus yooyu wala wurus ak xaalis moom du bokk ci lañuy dollee kookee nga xam ne moo rey yéefar ba loolu du ca bokk war ribaatu faandu fii nekk na ci moom fadlun ganeel kabirun luy aji rëy faandu mooy buntu ba julit ñi ragale yéefar yi songe leen ca nga taxaw fa nag léegi aar ko ba dara du fa jaare ñëw di lor julit ñi loolu mooy faandu loolu la wax ne nag moom bari na tuyaaba lool lool hadis bo xamna ne ribatu yawmin fi sabilillahi khairum min ad-dunya wa ma fiha khairum min ad-dunya wa ma alayha sandu ben bis ci yoon yalla mo gën aduna la ci biram wa dalika lolé bi qadri kasrati khawfi ahli dalika as-sahri nek ni ci kem bari ragaluk ñoñ bobali bunt wa kasrati taharrusihim ak bari seen watandiku bi aduhim ci seen non neena surtout yaa baa ngi bàyyee ne rek julit ña nañ tiite woon ci yéefaree jaari foofee lor leen yow nag nga fexe taxaw fa ba dara loru leen la seen tiitaangi toll woon rek noonu la surtout yaa bay bare ndax yaa fekk tiitaangi loolee wala yox saa deful xare ji bi xëyri idnil abaway ni ci lu dul ndigalul ñaari waajur ya neena bu fekkee ne jihaar ji fardu kifaay rek la kon bala ngaa dem na nga tàggu sa ñaari waajur ndegam ay julit lañu kon nga leen tàggu bañ bàyyi la bu bu fekkee day jihaad joo xam ne nag moom farata la ci ñëpp nag moom lay bëgg a wax moom kenn tàggu ñaari waajur ci lu mel noonu tax mu naa illa an yaf ja andare bu dafa bett alxadu noonu ya madina taxaw min dëkkub aw nit wayu xiroon te ñu lokki xalihim ci ñoom lokki muy attaqué fa fardun kon farata la xalihim ci ñoom dafa hun seenu jéñ wala yust atanu tëddeeful diisu al abawaani ñaari waajur fi misli haza ci kem lii yene bu yéefari bettee dëkkub julit faaw waa dëkk ba buñ mënee aar seen bopp war nañoo taxaw tem ñoom ñëpp ñu jóg kon farate jëmm la ci jëmm ju ne ñu jóg taxaw tem delloo yéefari gannaaw su fekkee tële nañ ca julit ñi sës si ñoom daal di war a taxaw ñoom it jàppale leen ca lu mel noonu nag kenn du ci diisu sa ndeeg sa baay li mu wax ne bu jihaad ja nekkee fardu kifaaya bala ngaa dem da nga caa am ndigalul sa yaari waajur ba tey nee nañu fardu kifaaya ci des noonu la bu mu ca mën doon bala ngaa dem da nga caa am ndigalul sa yaari waajur ni ki sàkku ji xam-xam bu fekkee day xam-xam bi nga xam ne farata la ci jëmm ju ne te mooy xam la la war ci sa diine soo bëggee génn dem jàngi ko te dëkk ba amu fa kenn ku la ko mën a jàngal kon sa ñaari waajur duñu la sañ a aaye ndax boobu xam-xam moom day faratay jëmm ju ne waaye bu fekkoon ne xam-xamu fardu kifaaya la maanaam géeju ci fiq ak alquran ak addis ba mën caa gindee moom day fardu kifaaya bu fekkee loolu xas na am ci dëkk ba ba noppi boo bëggee génn wuti lu mel noona faw nga xaar ba am ndigal ci say ñaari waajur bu fekkee dëkk ba nag lu mel noonu amagu fa nga xam ne fardu kifaaya la te amagul ci dëkk ba kon na nga sañ a génn jàngi ko feneen ndegam amul fu ñu ko mën a jàngee fu may génn rek te dëkk ba gis nga ne amagu ko kon moom duñ la sañ a aaye ndax fardu kifaaya faaw am ñu ci taxaw mu door a wàcc ci des waaye bu fekkee ne kenn taxawu ci kon ñëpp de bokk am bakkaar danañ ko waxee béréb booba loola amagu fa moo tax ñu naa am na kilifa gu ne law manahahu abawaahu min alxuruji lil fiqhi walkitaabi walsunnati wa maarifati al ijmaahi walxilaafi wa maratibihi wa maratibi alqiyaas fa in kaana dalika mawjudan fi baladihi lam yaxruj illa bi idnihima wa illa xaraja wala taaxata lahuma fi manxihi li anna taxsiila darajaati almujtahidina fardu kifayatin bu ñu leen nag balaa sañ nangam am ndigalul ñaari waajuram day aajowoo mu am seen digal ñoom ñaar ñëpp waaye kenn ko digal ko rek ka ca des bañ koo digal du doy te it ndigal la day doon ñu wax ko ci seen làmmiñ mu nekk ci seen xol waaye bu waaye bu ñu ko mayee ndigal te ña ngay jooy ndax loolu da leen a neexut dañoo amul pexe rek su boobaa itam du sañ a dem te it nee nañu lépp lu dagan loo xam ne bëgg na koo def waaye xëy na bakkanam mën na caa des di ci tukki ci gaal yi niñ koy defee léegi ak mboole mi demee noonu kenn du ko sañ ci amoo ci ndigalul sa ñaari waajur kon ñu takkaale foofu ne bépp tukki boo xam ne bu wóoradi la bakkan mën na caa des bala ko kenn def da ciy am digalul ñaari waajuram ñëpp ñëpp te muy digal lu wóor a wóor loo xam ne seen xol dal na ca sedd na ca waaye may ñu ko digal rek ba noppi boole cay jooy mbaa ñàkk pexe dong waral digal la baabu li ab bunt la fil aymaani ca giñ ya wan nudóori ak nisar ya maanaam giñ ak nisar nag ci lay bëgg a wax wa man kaana ku nekk xaalifan di aju nam ma giñ fal yaxlif na giñ billahi ci yàlla aw li yes mut wala mu noppi mbaa nga ne te mu noppi nee na ku bëgg a giñ moom nga giñ ci turu yàlla mbaa ci melow yàlla waaye bul giñ ci leneen lu dara màgg-màgg ni ki yonante bi mbaa kaaba gi mbaa leneen dañuy aaye ku ci giñ kon lu dara màgg-màgg rek te bokkul ci turu yàlla yi ak ay meloom doo ca sañ a waat ni ki waat ci yonante bi wala kaaba gi dañ koy aaye bu fekkee dafa maanaam daal waat ci lu mel yonante bi ak mbaa kaaba gi ëpp naa def ndax bu ca waatee loo xam dëgg la def na luñ sib bu ca waatee loo xam ne wóor na ko du dëgg nag moom mën naa am sax ñu jàppee ko kéefër ndax day mel ne ku yab kaaba gi wéggu ko ak ku yab yonante bi kon daal na moytoo waat ci lu bokkut yàlla rawante na waat lu amut ëpp naa def ba tey dañuy aaye waat ci sa bàyyi mbaa sa maam ndax yonent bi nee na woon inna allaha yanhaakum an taxlifoo bi abaikum yàlla du leen di aaye waat ci seeni bàyyi kon nag kenn waat ci bàyyam mbaa maam mbaa lu koy nuroo wayu adda bu def na yar man ka nga xam ne xalafa waat na bi talaaxin ci tose aw xataaxin wala ak goreel wayel sa mbufa tem koy war yonent bi daa waxal ne laa taxlifu بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق بلين واتي فاسي مبا غوريل ndax yoy yar dañoo bokk ci ngiñi kaccor yi fasé mom su mënta ñak rek ko yebu def ko ne mom sax dagan na waye yalla bëgg ko da ko bañ gorel ab jam